ci li nga xamante ne moom moo xew ci njàng meeg njàngale mi crise bi nga xam ne am na ci ah ci njëlbeen bi président de la république jël na matuwaay yu war joxe ay instructions pour que ah, ñi nga xam ne ñoom ñooy ministre de tutelle yi ñu jël question bi ah wax toog waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy syndicat jàngalekat yi fexe ba régler apporter ay réponses ci seeni revendication bi ñu njëkkee toog nag gouvernement bi proposé na leen ay yokkute ci seeni salaire enveloppe bi jëm ci 69 milliards bi ñu génnee ci ndaje moomu syndicat jàngalekat yi bi ñu consulter seen base dañu rejeté 69 milliards yooyu ci la gouvernement ci volonté bi ñu am à travers son excellence le président de la république Macky Sall woote waan beneen ndaje defaat ay proposition yoo xam ne mi ngi dem ci quatre-vingt-dix milliards te loolu jóge ci enveloppe boo xam ne cent milliards la bu yokkal ko agent wu fonction publique yépp quatre-vingt-dix milliards yi ñu jagleel ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat yi bi ñu ci waxtaanee ci ay poñ ba d'accord ci juróom-ñaari syndicat yi nga xam ne ñoom ñooy représenter jàngalekat yi ci négociation yooyu juróom yi d'accord nañu ne proposition nguur gi raisonnable na te c'est historique ci lutte yu ñu mës a def yépp musuñu am yokkute bu toll fii ñoom ñu signé li nga xamante ne mooy accord bi joxe seen kàddu ne dañuy lever moo d'ordre bi dellu ci classe yi ngir xale yi mën a continuer seen jàng mu am ñaar ñoo xam ne nee nañu foog ñu delluwaat waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen base ñu ngi félicité ñëpp ñi nga xamante ne levé nañu mot d'ordre bi di wax ñeneen ñaar ñi ndax xam nañ leen bu baax xam seen responsabilité itam ñu bokk système bi te xam nañ ne. li nga xamante ne moom mooy intérêt réew mi mooy intérêt xale yi moom lañu jiital ñu ngi leen di xamal ni que population bi yëpp acteurs yi yëpp muy parent muy élève muy société civile muy état ñëpp ngi taxaw di leen déglu ci retour bi nga xamante ne war nañ ñu ko defal lundi pour que xel yëpp dal ci li jëm ci année scolaire bi ñu ci félicité acteurs yi yëpp ñi nga xam ne dugal nañ ci seen loxo pour que crise bi mu mën a am benn dénouement bu heureux di féliciter ki nga xamante ne moom mooy son excellence le président de la république ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci crise bi ci sérieux bi nga xamante ne jox na ko ko ci considération bu rëy bi nga xam ne jox na ko jàng jox na ko jàngalekat yi ak élèves yi ah di ko xamal ne que ñun jàngalekat yi ñu ngi koy réitérer li nga xamante ne moom mooy suñu soutien suñu engagement ak suñu détermination ci wetam ci accompagner ko ba bépp yéene boo xamante ne am na ko ci réew mi ah pour que mu mën ko matal.